est-ce que jekk na mu dugg ci gémmiñu nit mag ñi musuñ ko xalaat dafa am ne ndax jigéen bu amee jëkkëram waaw ce que daganul mu jëflanteeg moom lu ko neex ma ne ko waxtu woo amee jëkkër lépp dagan na dara xaraamatul ci yéen waaye nag am na lu yiwadi ci yéen lu xaraam amatu fa lu yiwadee fa am bi génne saw ngeen baal ma ci waxin bi parce que moom la mën a tudd saw du baat bu ñaaw saaw la parce que bu ndox mi génn day tasaaroo ngeen ne maa ngi saawi olof gàttal ko ne saw mais saaw la ñuy wax ko moom. waaw ce que ah. bi koy génne di awra warul mën a dem ci gémmiñ parce que luy génne sobe du dem fu sell. xanaa ah. te habitude la. bu bon la nag. parce que gémmiñ pour tudd yàlla la. gémmiñ pour julli ci Muhammad la. gémmiñ pour zikar la. gémmiñ lu yiw rek moo fi jaar lekk fa lay jaar ak naan. <laughs> kon leneen lu sellul. waru faa dugg gisoo boo óbbali yeneen bi ne la bul dëpp sa loxo càmmuñ bi ci sa gémmiñ gi bul dëpp fii dëppal fii fii lu tax fii mooy raxas sobe bëgguñ nga teg ko fii defal nii waaw ku lay tere fii nga teg ko fii dana leen jëlal awra dugal sa gémmiñ